Khadim Diène secrétaire administratif GIE Adob tey jii GIE ah, dafa àndoon ak Codipass euh, ak Razia invité Sonacos ak euh, yeneen kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di liggéey comme COPEGA ak ñeneen di liggéey ci wàllu gerte bi ndax campagne ba mu ba léegi acteurs yëpp dañoo ànd maase ne échec na te demagul fenn léegi nag avant muy gën sori opérateurs yi nga xam ne ak acteurs yi nga xam ne dañu liggéey ci bi dañoo war a dajaloo sottante ay xalaat nos ko tënk ko ci benn document jéppal ko autorités yi nga xam ne ñoom ñoo yore dogal ngir filière bi ñu mën ko sauver ren ensuite mën a jëlaat ay mesures pour les années à venir jafe-jafe yi bari na d'abord am na ay difficultés commerciales parce que dañuy bàyyi chinois yi ñu ñëw dugg ci terrain bi dem ba ci àll bi di jënd di propose ay prix yoo xam ne acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di liggéey ci gerte mënuñu ko léegi ñoom ñu écarté leen ñu toogee fële yemuñ ci ñu dem ba di jënd ay terrain ci biir di wut ay machine di ko installé di liggéeyal seen bopp léegi éliminé nañ baana baana bi doon dem di jënd gerte éliminé nañ ki nga xam ne dafa yoroon centre maam dàggam di liggéey ci gerte di embauché ay jigéen ak ay xale mu doon ay junni junni nit yi ciy liggéey ci wàllu gerte ci xool ak ci tànn ci Touba ak ci Kaolack ci Kaffrine ci Kolda ci Sédhiou ak foo dem ci réew ñoom ñëpp ñu yóbbu leen au chômage éliminer exportateur locaux yi di jël gerte gi di ko génne réew mi sans pour autant faire entrer des devises dans l'économie nationale c'est pas normal léegi difficulté yooyu yëpp ak euh, difficulté yi nga xam ne moo am ci ñi nga ne ñoo doon liggéey ci gerte gi amatuñ liggéey dem nañ chomage ñenn ñi sinuwaay jël nañ liggéey ak ñoom nax leen ba finalement dañoo mujjee yar ay bor ñooyu yëpp tax ñu daje ne léegi nañ ko teel a alerte état bi ci trajectoire bi nga xam ne moom la filière bi jël baaxul mu teel a jël ay ay mesures rectificatives avant qu'il ne soit trop tard pour cela ñu proposer aussi un certain nombre de solutions à l'autorité compétente parmi les solutions d'abord li jiitu mooy day farata mu préserver le capital semencier pour mu préserver li ci pour mu préserver capital semencier bi li ci jiitu mooy d' abord mu fay opérateurs yi li nga arrière yi nga xam amee na leen ko ba lool bu leen ko fayee campagne bu ñëwati li muy def mooy woo ñi nga xam ne ñooy opérateur certifiés yi jox leen notification yi avant mois de novembre kenn ku nekk xam carrément lii sa rôle poids bi nga war a jënd ak variété bi nga war a jënd ak bi nga war a jënd ak quantité nga war a jënd léegi ñoom ñu dem jënd ko. buñ ko jëndee ba nopp ba stocké ko état bi ñëw ay ndawam vérifier conformité quantité yi ak qualité yi semence yooyu est-ce que réelement ñi liñ déclaré en quantité ak en qualité est-ce que réellement li am na bu amee nag ñu soog a ubbi frontières yi étrangers yi soog a ñëw ci biir réew ma léegi nag étrangers yi bu ñëwee tamit buñ leen bàyyi ñu pëccëxoo rek fu neex waay fu neex waay dem fu neex waay traité déedéet dañ leen di encadré dañu ñun terewuñ kenn mu parce que ñun ñëpp ñoo bokk terrain mais dañoo proposer à ce que mu am organisation étranger yooyu na leen orienté ci ex ci société d' exportation sénégalaise bi nekk parce que am na fi am ay sénégalais yoo xam ne am na ay société di exporté mën naa ci li ko mel ni COPEGA Adobe man mën na ak ñeneen ak ñeneen bu ñëwee ñu orienté leen foofu ak ci huiliers yi ñuy traité ak ñoom boobaa dina am au moins organisation foofu la ñuy yem ñii ñoom tamit traité ak seeni collaborateur di wàcc ba ci suuf gerte gi au moins baana baana yi man a delluwaat dem di ko jëli ci àll bi di ko transporter transporteur man cee gis seen bopp indi ko ci centre de décortiquage yi buñ ñëwee ñu ndaw yi ak jigéen ñi di ci liggéey di ci gis seen bopp buñ ko xoolee ba noppi ñu ne état bi nag même variété bi muy exporté ak qualité de graine bi muy exporté dañ ko war a xool du caagee ne gerte ñëw rek dañ war a bàyyi mu gën a réew ñun li ñu proposé moool état bi mboj sol bi muy gis bi ñuy gis chinois yi nga xam ne moo leen gënal lépp ñu tere exportation asps bi nañ koy trier di ko tànn mooy tax dagga yi am liggéey jigéen ñi di liggéey buñ ko tànnee ba nopp au moins ñu xool amande entière yi mooy graine yi nga xam ne tànn nañ ko ba mu set quota bi ci war a génn société d'exportation sénégalaise yi génne ko wala ñuy jox ko chinois yi ñu génne ko li ci des ñu bàyyi ko mi pour arachide de bouche dana graine yi mooy buuse bi au moins fii am na ay unité de presse artisanale rien qu'à Touba il y a cent cinquante neuf unités d'artisanat te yooyu am nañ kawal am ko na rek ñooñu mën a gis seen bopp mën a jënd bouse bi liggéey ñëpp liggéey ko ci sa bopp intérêt bi dans son ensemble moo ñu tax a xool solution yi ñu proposé pour filière bi mën a dundaat parce que filière bi foog mu dund huilier soog a mën a am exportateur soog a mën a am producteur am commerçant am opérateur stockeur am commercialisation bi am na ay jafe-jafe ndax ba mu ubbee la vingt et un novembre ba léegi ñun acteurs yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi gisuñu suñu bopp lu waral loolu nag mooy daa am ay gan yu jóge bitim réew ñëw jënd gerte googu dafa ci ay magasin fas yéenee xaar bis ñëw yu génne ko réew mi loolu nag dañu jàpp ni jafe-jafe ci ñun lay dal fi mu nekk nii mais jàpp dina ni bi ci kanamee tuuti Sénégal gépp dina gis ni lii baaxul ci réew mi ndax gerte googu nga xamante ne ni tey ñi ngee koy jënd di ko génne bitim réew dafa nekk loo xam ne ay usine dañ ci war a nekk di ci yëngu ci xoll bi ci nal bi ak ci tànn bi bu nekk loo xamante ne nii nag bañ ci yëngoo ba pare lañ cay am réew mi dañ koo soxla ndax ku ne xam ne ne diwlin prix bi muy jaar dafa jéggi daya te gerte googu bu ñu ko defoon diwlin mën naa am waa réew mi jot ci di am diwlin ci prix oo xamante ne nii mooy gën a yomb prix bi nga xamante ne moom la ñuy jënd fii ñu nekk bu ñu ko ci jafe yi ràkkal bi nga xamante ni dañ ko doon am dootuñ ko am ci réew mi ràkkal boobu dañ koo soxla pour xontu juru Sénégal ràkkal boobu dañ ko soxla pour usine def aliment bétail man di am ripaas di ko jaay éleveurs yi ak ñëpp ñi nga xamante ñooy yëngu ci loolu pour que ñu mën a am mën a am yàpp mën a am nen ci ay prix yoo xamante ne nii tey dina abordable kon gerte gi bu génnee li ci gën a garaaw mooy jiw bi nga xamante ne nii tey dañ ko war a amaat déwén pour mën a bayaat gerte am ko gerte boobu bu génnee jiw boobu dina dem donc ñu dañoo woon tey di wax ni dineen combat xeex lu ñu mën ba gerte googu nga xam ne ñi ngay jënd dina ko ci ay magasin bu génn réew mi wala bala moo génn réew mi dinañ ci am loo xam ne dinañ ko ci am ci loo xam ne dinañ ko def dinañ ko transformé am ci loo xam ni dinañ ko teg muy arachide de bouche ku bëgg maafe ku bëgg caaf ku bëgg loo xamante ni dafa génn ci gerte am ci réew mi donc ndaje mi looloo nekkoon solo ndaje mi li nga xamante ne wax nañ fi wax nañ ko fi am luñ ci yokk am luñ ci wàññi nañ ko tënk ci kayit dañ ko yóbbu suñu sëriñ suñu xalifa suñu kilifa sëriñ Mountakha Mbacké buñ ci jógee yóbbu ko ci kilifa réew mi te ñu xam ne nag combat bi du yem foofu ndax moom ñun fas nañ yéenee taxaw ba balaa gerte génn li nga xam moom lañ soxla ci réew mi des fi ndax bis bu demee problème dina am te xam nga chinois bi du génne gerte gi moom état du Sénégal rek moom moo tax chinois bi génn gerte waaye ñun ñi nga xamante ñoo fi nekk di waa Rasiat du waa di waa Codipass di waa adopté ñun dañoo jàpp ni balaa gertee génn dañoo war a am lu ñu jariñoo ci dëkk bi ba pare mais gerte du génn moom loolu autorité état la en tout cas lañu leen def suñu kër balaay kattan balaa moo génn bi mënul ñàkk parce que dañu am ay accord ak Chine waaye dañ ne balaa moo génn dañu am lu ñu ji am lu ñu jariñoo am lu ñu jëfandikoo bu desee mu soog a génn tey am na loo xam ne d'accord nañ ci muy exportateur bi muy ñun bu gerte gi balaa moo génn dañ ko tànn ndax tànn boobu ab liggéey la te tànn boobu day tax tey lañ fee tànne ñun moom ñi ñu def presse muy gerte buuse loolu ñun mën nañu koo jëfandikoo buñu tànnee ba pare it ñu jël gerte kemb bi tego ko ne parce que tànn boobu mooy a exportateur bi ne Touba mën a gis boppam ci liggéey bi mën a euh, exportateur bi mën a bala moo balaa daraa xaw tànn boobu mu tànn ci lay ëpp valeur ajoutée ba nga xamante ne tey moom dina mën a exporter ba te chinois bi loolu euh, investissement boobu moom dafa gudd ci réew